mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer bu tedd bu màgg wi yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan Senclic ñu ngi leen di nuyu ci commencement weer bi di leen wax ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla mu boole ñu baal di ñaan yàlla yéen ñi nga xam ne yéen ay taxawu seen bi yàlla yàlla gën leen defal tawfiix yàlla ubbi seen buntu wërsëg yàlla mottali seen yéene ci seen liggéey ngeen fekke ko seen njaboot yàlla na ko yàlla def mu mel ni ci waxtaan bi paase rek dañu indi woon introduction ci wàllu koor bëggoon nañ sax ci wàllu yéene yi ci wàllu ponk yi waaye émission bi moo mayu doon pour ñu mën ci xuus tuuti kon dañ ci indiwaat rek quelques points ci wàllu koor ndax jaamu yàlla boo gis dafa am ay ponk yoo xam ne mooy ñëw ko la ngay def jàmm yàlla ba mën a baax kon bu ñu ñëwee ci koor dafa may ponk yoo xam ni feeg yooyu ñëwul koor gi mënul baax bi ci jiitu ci ponk yi nga xam ni fokk nga nit ki def ko kooram mën a baax bi ci jiitu ju ñoon nañ ko keroog waaye dañ koy xaw a yaatal mooy an niyatu yéene bi te yéene bi kenn werantewul ne yéene farata la ci julli ak ci azaka ak ci koor ak ci aj moo tax ñu wax ne bépp jaamu yàlla boo xam ne nit ki mu koy def pour jege ci boroomam dafa laaj yéene ndax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli imriin ma nawa di moo wax ne jëf yi yépp yàlla ko aj ci yéene kon yéene lu am solo la ci jaamu yàlla bu mënti doon kon buñ ne yéene nag ci wàllu koor boo demee ci mazhab imam al maliki yi imam malik moom dafa wax ne pour sa weeru koor mën a baax yéene bi yaa ngi koy def avant fajar ci koor gu mën a doon nag fi kulli sawmi fardan kaana aw nafulan benn weer wi da koor gi ngay woor benn mu nekk weeru farata comme weeru koor wala mu nekk rek weeru gàtt nga te mooy la lu tax mu wax loolu mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wax ni man lam yajmaci siyaama qabla alfajri fala siyaama lahu yonent bi nee na ku fanaanewul yéene woor nee na amuloo koor li ñu ko mën a expliquer mu leer mooy démb bi ñu ne weer wi feeñ na nga jot information bi ci ngay fas yéene woor weer wi yëpp foofu nag du am are ngay beesalaat sa yéene bu fekkee da nga bokk ci mazhab imam Malik kañ ngay beesalaat sa yéene mooy boo demee ba am ndox ci diggante bi benn feebar la wala bu jigéen dafa gis mbaax yu mel noonu wala ngay tukki tukki bu tax nga war a wàññi julli te tukki julli wàññi boo koy def dangay ngay bàyyi koor booba ngay ñibbisi kon loolu la imaam Malik wax boo demee ci Ashafii ak Ahmad ñoom dañu wax ni bu fekkee ne kooru farata la mën nga fanaanoo yéene pour woor waaye ñoom dañuy wax ne bés bu nekk danga koy yéene pour woor waaye bu dee ne góoru kooru nga la amul loolu ci ñoom ndax Sayyidatina Aïcha moo netti leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xëy ñëw ci ñoom laaj leen ndax am na lu nit mën a lekk ndax ñam a ngi fi ñu ne ko déedéet ca la wax ne kon man dama woor kon li muy tekki mooy bu fekkee weer wi koor gi ngay woor du wooru farata wooru gàtt nga la su boobaa boo xëyee ndékkiwuloo bu la neexee mën nga fas woor bëccëg bi boo demee ci xanaa bi yoona yi alxanafi yoona yi ñoom dañu wax ni nee na dena du dagan ba cest du jaadu du nekk lu war ci nit ki mu fanaanoog yéene avant fajar ci weer boo ci koor goo xam ne xam nañ ne weeru farata la lu mel ni weeru koor wala kooru nizar yu mel noonu kon loolu moo doon farata bu njëkk bi ci li nga xam ne mënta ñàkk ci weeru koor bi te mooy yéene bi ñaareelu farate bi mooy al imsaak al imsaak buñ ko waxee mooy nga téye sa bopp wax wal imsaaku an saairil muftaraat te mooy nga téye sa bopp ci lépp lu mën a dog koor alquran mooy wax kullu washrabu xata yatabayana lakum xaytul abyadu min al xayti l aswadi min al fajri summa atimu siyaama ila leyli alquran moo wax ni na lekk di naan ba ngeen demee ba mun a xàmmee leeraayu fajar gi ak guddi gi moo tax mu ne alxaytul abyad min alxaytil aswadi min alfajri nga xam ne fajar mu ngi jot si su ma atima siyaama ila leyli bu ko defee ngeen mottali koor gi ba guddi gi ñëw te mooy jant bi so danañ ci ñëw ci ay détails kon ñaar yooyu mooy farata ci wàllu ko